ci la chambre criminelle tribunal grande instance bu Mbour euh, prononcé woon euh, condamnation ñu xëy ca ëllëg sa euh, sunu borom daal di def li gën jël Cheikh Béthio loola nag di ay moment yu particulier yoo xam ni Sénégal dund na ko cantaako ni dund nañ ko waaye ñi jege woon Cheikh Béthio itam dund nañ ko bokk ci ñoom maître Moustapha Dieng Euh, di avocat wu Cheikh Béthio euh, mësa doon avocat wante itam jaxasoo woon ak moom lu bëri euh, xëy na mën ñoo wax itam ci Cheikh Béthio lu ñu xamul woon Maître Moustapha Dieng ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci démb ak tey ngir waxtaanee lii ma fi jonjo maa ngi lay fay soxna si di nuyu sa auditeurs yépp di rafetlu tamit sa taxawaay ci réew mi ndaxte réew mi FM également organe de presse la boo xam ne lépp luy joxal askan wi da ciy dox maa ngi leen di encourager di leen remercier di rafetlu tamit invité bi nga ma invité pour ma wax ci jëmm jooju wax ci nag ci li ma ci mën a xam ci Zahir mm-hmm. ndax c'est quelqu'un boo xam ne ku ku yéem la ci man ma marqué la ci sama parcours liggéey professionnel avocat mais tamit ci diggante dëgg-dëgg doom ak kilifaam la waaw nit ku ma marqué la wax dëgg yàlla sawar naa lool def yow entretien bi ñu waxtaan ci jëmm joo di sëñ Cheikh Béthio Thioune. Mm-hmm. xëy na sa digganteeg Cheikh Béthio mi ngi fësee euh, ci procès bi euh, jafe-jafe yooyu wante lu ko jiitu jaxasoo nga ak Cheikh Béthio euh, kan mooy joojale jëmm ci li nga xam ci moom bala ñuy ñëw ci mbir yeeg procès beeg yu ci aju. soxna Fatou xam nga man dama di doomu banlieue dëkk Géejawaay. Cheikh Béthio Thioune dafa marqué fa nga xam ne foofu laa dëkk muy Géejawaay histoire am taarixam ba boo demee tey da ngay dégg croisement Béthio anglu Cheikh Béthio loolu yëpp ay jaar-jaaram la ak taxawaayam bu rafet ci askanu Sénégal rawatina askanu Géejawaay bi nga xam ne fa laa dëkkoon mais nag sama diggante ak Cheikh Béthio du procès bii nga xam ne mooy mbiru Madinatu Salaam yi commencé woon 2012 déedéet. man sama yaay te defe naa ni cantaakoo yi suñu déggee ñu ne wax xel xelkom dinañ xam lan laay wax sama yaay sëriñ saaliw moo ko boole woon ak sëñ Cheikh bejo boobu temps ñun ay tuut tànk lañ daanaka sax boobu maa ngi nekk élève nekk ndar di jàng ma dara ba ñu jaxasoo nag ñoom ñaar kóllëre boobu nga xam ne lii ak ndigal loolu nga xam ne Serigne Saliou te ku xam Cheikh Béthio xam que ni euh, sëriñ Saliou da ko dul dendale ak lenn ba mu ko boolee ak sama yaay soxna si sama wayju ba Cheikh Béthio bi muy làqu ci Zahir kóllëre googu moom ci wàll boobu sëriñ bi da koo masa dox maa ngi lay xamal ne la bokk nañ ci ñun suñu famille ñoo xam ne daanaka depuis bi may nekk euh, élève wala étudiant ba bi Cheikh bi di làqu daanaka néew nañu toog at moo xam ne Cheikh Béthio ñëwul ba Géejawaay tàntal meer xel comme tànt bu yaatu indi ay nagam indi ay toggukatam jël alalam def ko ci def ko ay defal ko ay cant jagleel ko sama yaay ngir jëmmi Serigne Saliou xam nga loolu ku koy dund ak sa wayjur Cheikh Béthio kóllëre boobu mi nga xam ne moom la amoon ak soxna si tey sama soxna si day tey mag la mag la waaye kóllëre boobu mu amoon ak moom musu koo fecc lool yi bokk na ci li nga xam ne man daf maa tegoon foo xam ne ci wàllu liggéeyu avocat tegu fa ñu bari. moom Cheikh Béthio waaw waaw yàgg na maa jox ay dossier yàgg na may woo ne ma Moustapha Ka damaa bëgg ci lii ak lii ak lii te ay lii yoon man xale laa. Mm-hmm. daanaka euh, samay at demewul woon noonu amoon na ñeneen ñu fi ëpp tur dàq mam njàng ëpp mam njàng waaye daf ma daan toog di ma mun a Moustapha yow su ma lay xool rek dama lay xool ci jëmmi Serigne Saliou. ndax sa yaay li ma boole ak moom li ma séq ak moom ku jegee rek man Serigne saaliw jege meer xel kom rek dama lay jël def la ci sama bopp Cheikh Béthio daf ma tegoon comme doomam barke Serigne Saliou te loolu ma lay wax nii Serigne Sall Gueule Tapée mën na koo seede ay soxnaam ñoom soxna Aïda Diallo ñeneen ñoom ñépp mën nañoo seede loolu ku ma ku ma marqué la ku ma impressionné la woon wax dëgg yàlla te ba léegi itam saa yu ma toogee du mënumaa toog te xëyuma suba ñaanal ko ndax dafa ma bëggaloon boppam. tey dafa nekkoon nit ko spécial goo xam ne boo koy jege rek yow daal mbégte rek ngay mën a am. Cheikh Béthio mënoo ko jege am ay état d'esprit di wax wala ndàngam nangam nitu jàmm la woon. nit ko am kóllëre la woon. alors li nga wax ni firndeel ni amoon ngeen ay relation yu yu yu xóot yu sori euh, ñi xamul Cheikh Béthio tey boo leen doon wax kii Cheikh Béthio euh, lan nga leen di wax. taalibe Serigne Saliou Akkan taalibe Murid Sadix ku amoon gëm-gëm amoon pas-pas amoon pësteef ku laabiroon ku tabe woon mais tamit un grand intellectuel Cheikh Béthio Thioune dama koy fàttali c'est un ancien enseignant dama ko daan fàttali administrateur civil yàlla may ko nag ci wàllu zahir àdduna dafa amoon am jàng am yàlla mayoon ko ay connaissance mais boo toogee moom amaana bu ngeen di jaxasoo nga toogee sëñ bi sax da loolu yëpp da lay da lay xaw a réer boo amul dégg-dégg. Mm-hmm. ah parce que dafa oyofoon Cheikh Béthio mooy koo xam ne eh, doomu aadama yëpp la fonkoon c'est pas le genre boo xam ne da koy ñëw gis ko muy yëkkati nit ndax martaba wala daraja yi àdduna ji déedéet moom ñëpp la jëloon rek def leen ñëpp rek mu nekk njabootam ñëpp la yemale woon c'était un homme modeste c'était un homme cultivé dafa amoon xam-xam culture te it am na maanaam dégg-dégg en tant que taalibe ak gëm enseignement wu Serigne Saliou ba nga xam ne doo toog ak moom mukk mu wan la yenn martaba yi déedéet dina toog maasale ak doomu aadama yi pour lu mu lay wax li lay enseigner ci zaahir nga mën ci ànd nga mën ci boo ci àndeek moom nga mën ci gis ay njariñ c'était l'humilité faite homme Cheikh Béthio Thioune ça je le dis du fond du cœur wax dëgg yàlla sama xol dafa fees su may wax ci moom dinaa sama xol day tooy. je peux pas vous dire mais mën naa la wax lenn de Cheikh Béthio amoon na une dimension spirituelle bu doy waar am une dimension humaine bu doy waar am na nag peut-être ñu ko umple mais yaakaar naa ni bi mu demee ba léegi lu bari mu ngi feeñ. man je le dis vraiment en toute objectivité nit ku ku yéeme la ku yéeme ku yéeme ku yéeme mooy Cheikh Béthio waaw. Euh, Cheikh Béthio euh, lan moo nekkoon mbébétam pour Sénégal ndax gis nañu taalibe yi ak euh, di ko jege ñoom daan ñoom daan jëflante ak ñoom for nañu ci weewu ba tam ne dimbale na taalibeem yu bari mais est-ce que li nga ko jege xamaloon nga ko ay mbébét ci réew mi wala loo xam ne bëggoon na ko participer à sa manière. Cheikh dafa daan toog di ma woo. je vous que Cheikh bi même avant muy dem à la retraite may def étude de droit. comme moom il était administrateur civil nekk secrétaire général fii euh, commune de Dakar dañ daan toog mu may enseigner di mu wax ci yu bare bare bari ci jaar-jaar ak mébitam ak yéeneem daan na wax mu ne ma euh, Moustapha Sénégal réewu jàmm la fépp foo dem ak lépp looy dox surtout bi ma nekkee avocat lu yee fitma bu ci mas a dox del wutu jàmm ku bëggoon jàmm la c'était quelqu'un qui aimait son pays c'est un patriote léppam léppam ci taxawaayam moo doon fexe ba doomu aadama yi nekk benn Sénégal yi nga xam ne suñuy way kilifa yi Seydi Hadji Malick maam Borom Touba maam Baye Laye Baye Niass maam Boukounta Ndiassane taxawaay boobu ñu fi amoon ak suñu spécificité sénégalaise boobu ñu xam ne mooy li Senghor daan waxee notre voix spécifique daan na taxaw naan ma suñu Sénégal suñu or ak suñu jamaa mooy jàmm nitu jàmm dëgg la woon et il était vraiment content bu gisee doomu aadama di réussir dafa bëggoon nit mu xoolee sax ci taalibeem yi wala quelqu'un mu réussir dans une entreprise donnée da ciy sawar dama xamal na leen itam ca yam daan liggéeylu mu koy liggéey parce que man boole na maag ay nit fekke naa muy taxawal ay travaux yu bëri muy liggéeyam bi mu def Médina Salaam bi tey ak yeneen yeneen sax daan na faral di privilégier l'entrepreneuriat local ndax ma daan wax ma ne ma lu may def bu ko Sénégalais na koo liggéey Sénégal yi laa koy dénk. préférence nationale. ci jumaa yi muy tabax te tabax nay jumaa ci ñi muy dimbali ci ay dëkk ci ñi muy ñëw daggal ay kër tabaxal leen ko. yépp day jël entrepreneuriat local bi ñu koy liggéey mu leen di fay c'était quelqu'un de très généreux très très très généreux. digganteem taalibe yi dégg nañu ci yu bari ñenn ñi moo leen may kër ñenn ñi moo leen dimbale ñu liggéey ñenn ñi moo leen dimbale mu tukki loolu raar tey ci chef religieux euh, dañuy gis ñu bari dañuy xaar taalibe yi ñoo jox du sax waaye taalibe yi koy def wareef waaye chef religieux buy wëlbatiku di def ciy taalibeem dégg nañ ko ci Cheikh Béthio bari man mii Cheikh Béthio defal na ma teraanga tey dinaa la ko wax. ba ma koy may boobu temps daanaka avocat stage maa ngi war a pare sama stage aw ma dërëm ba ma woowee comme ni ma la wax firndeel kóllëre bi doxoon sama diggante digganteem ak sama yaay xel Xelkom mu daggal ma kër te li ma defal nii defal na ko ñeneen i ñeneen i ñeneen i taalibe ñoo xam ne ji wax dëgg yàlla tey demal Medinatu Salaam bi di nga fa fekk des milliers de doomu aadama yoo xam ne ñu bëri sax xamu leen sax day ñëw toog mu xam ne ñii dañoo nekk ci ay ay ay tolof tolof am njaboot war am fu ñu dugal seen njaboot mu daggal la may la def na ko janatul maxwa c'est des milliers et des milliers de familles yu mu ñëw jël ay kër jox leen Cheikh Béthio li mu def ci social ak bëgg doomu aadama su ma doon toog di ko wax fii mën nañoo toog fii yendu fi ba fanaan bi te du jeex c'était un homme généreux te li mu doon def daaw ci boole ngistal léppam nag sëriñ saaliw la. waaw ah, loolu dañ koy dégg nii rek di fortaatu. waaye dañ koy fortaatu mais bu la ko kenn kooko bu nettalewul du la ko wax tey jii man maa la ko wax yow nga dégg. pour vous dire que man am naa ak moom ay relation yoo xam ne relation yu yu kawe la yu sori la. c'est quelqu'un boo xam ne daf ma impressionné bu baax a baax a baax a baax et je le dis di ñaan yàlla wax dëgg yàlla euh, sunu borom rek man xam naa ni. Euh, enfin lépp daal mu ne su koo wax rek mais xam naa ne su may wax ku mel ni ay jëwriñam yu ko jege ay doomam ñoom soxna faatim sëñ Saliou xalif généralu Cheikh Béthio euh, soxna Aïda Diallo waa këram yépp xam nañ bu baax cofeel bi ma am man personnellement ci Cheikh Béthio ak reconnaissance bi ma am ci moom daanaka dina ma empêcher ci yu bari duma ci mën a wax ma ciy tugg man képp ku ma ciy xool rek dama lay xool ngir jëmmi sëñ Béthio sëñ Béthio toog naa ak moom plusieurs fois yoo xam ne c'est dans le plus grand secret ñu waxtaan ci yu bari donc on parle dañ daan waxtaan ci droit dañ daan waxtaan ci astronomie dañ daan waxtaan ci yoonu murid ci Serigne Saliou moom boo tàmbalee moom moom moom du jeex dañuy wax di lañ wax yu wax yu yéeme yoo xam ne man toog naa am chance wax ak moom notamment bi mu nekkee ci ay xat ay difficulté 2012 ba ay février 2013 bi muy dem France ñu yóbbu ko évacuer dama daan toog moom Thiès ñu nekk à la maison d'arrêt ensuite bi mu ñëwee dakaar fii pour raison médicale dama doon toog moom tout le temps dañ nañ toog yendu pratiquement suba ba ngoon ma bàyyi sama audience ñëw ñuy waxtaan foofu laa taataane ci moom ay mbir yoo xam ni yu ma yéem la yu ma yéem la yu doy waar la c'était un homme multidimensionnel et dama la koy waxaat nga dégg ko ma wax ko seede ko Sénégal yi dimension spirituelle u Serigne Béthio xanaa bi mu làqoo la nit ñi di door a commencé am as tuut te man mii sax tuuti naa nag ci ko wax ne dimanche kooku sëñ Saliou da koo defar sëñ Saliou da ko tabax sëñ Saliou moo ko defal li mu defee cant gi ku amul dégg-dégg nag doo mën a comprendre li ma la wax. kon Cheikh Béthio moom beneen dimension la. parce que ah beneen dimension la c'était quelqu'un de c'était quelqu'un de de de bien. bi dafa am ay valeur yoo xam ne man dama ko gis ci moom cest à la force de la foi cest à maanaam doole yi ngëm-ngëm li mu gëm ba bi muy làqu ci Zaïre kenn mënul ñëw tey ji citoyen sénégalais yi nga ne ba ci mës na ci teggi meetar digganteem ak Serigne Saliou rataxoon na lool rafetoon na lool àdduna tamit dem na ci jimmi jamono muy dox am na ci ñu bëri ñoo xam ne bu ñu leen tolloon ci fa mu toll woon cheikh bi tolloon ak sëriñ bi daanaka amaana peut-être mën na am mu demee neneen <laughs> waaye Cheikh Béthio ñun ñëpp ko mën a témoigner. Mm-hmm. murit beeg xaadir beeg laayeen beeg ñëpp mën a témoigner que ni amoon na gëm-gëm. te taalibe la mos a nekk ci ci ci ci Serigne Saliou pas-pas mm-hmm. ci taalibeem bi mu nekkoon ci Serigne Saliou ak yoonu murit mosu cee dévier benn mètre. ba bi muy làqu ci Zaïre maa ngi maa ngi au passage franchement di rafetlu taxawaayu ñenn ñoom sëñ Ibrahima bokkum euh, ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne xam naa ni bu ñu déggee ñuy wax ci Cheikh Béthio rek seen xool dina tooy ñoom xam nañ waaw mënuñu ko mënuñu ko ndax koo ci jege ci ñoom dalay wax ni mënuma def cinq minutes ci Cheikh Béthio. Ah. waaw premier anniversaire ba ba bii wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy sàkku mais koo ci wax danaan la mënuma wax cinq minutes ci Cheikh Béthio je pourrais pas loolu tam dañ leen koy nangul ndax cofeel gi moom dafa mel ni cofeel gi Cheikh Béthio amoon ci Serigne Saliou moom la wala moo wala ngaan rek. ba ci ba ci taalibe wala ngaan ba ci taalibe ba ci am ni jàmm yi ba ci xarit yi. ba ci sax tubaab ñoo xam ne sax xamuñu woon sax Sénégal fu mu féete kooku dimension Cheikh Béthio la et puis ma wax la ci générosité am Cheikh Béthio nekkoon na koo xam ne wax naa la ko dafa am coloré am na lu ma marqué nag loo xam ne moo tax interview bi faaw ma jooy parce que affaire ma tooy sama xol dafa mos na woo te li may wax ni je parle sous le contrôle de Serigne Saliou mii ay ñoom mi daal di peut-être fekkee nañ ko ñeneen ñoom Fatim wax na ci benn waxtaan boo xam ne njabootam yépp a ngi toog boobu temps yëpp amagul événement Médinatu Salaam yi. Mm. mooy maître Moustapha Dieng bii doomi meer xel ko te yaayam am doole lool ci yoonu Serigne tubaa xale la de waaye dama bëgg ngeen fonkal ma ko ndaxte xale la mais jàpp naa ci moom ne kii jëmm ji duma masa wor bam bam moo koy wax événement yi amul moo tax événement yi ba mu amee bokk naa ci ñi nga xam ne man la njëkk a woo téléphone jour fee je pense que ay le 20 la wala le 22 dès que mu am information ci xaaju guddi gi daf maa woo téléphone woo ma ne ma ah Moustapha Mbir am na. en ba ñu demee en 2012 man maay la premier avocat bu mu ñëw woo en pleine nuit bi ko gendarme yi informé de li xew ci kéem man la njëkk a woo billaahi wal dem nañu cees avocat yi ñun ñëpp ñu bari mu toog rassemblé ñëpp toog mu ne la ma waxoon démb sama waxi démb mooy sama waxi tey Moustapha dama koo jàpp ndax da di sama avocat démb tey soog di ñëw man ak yaayam benn lañu meer xel ko donc damaa bëgg yéen ñëpp lépp lu ngeen am ci ay doléance wala ngeen bëgg a def rek na ngeen ko jaarale ci moom te boobu bañ koy nekk am na ñeneen ñu fa gën a ancien ñeneen ñu fa mag ñu fa nekk. Ah, des grands du barreau. des grands du barreau étaient mu wax ko ñëpp toog di ko dégg. kooku man mënuma wax ci moom. te yow lañ defoon porte parole sax. ah yaa daan wax lépp daanaka. il était généreux. yooyu boo ma koy bu may ñëwaan ni sama rongoñ day turu. ku baax la woon. ku ku am kóllëre la woon te Cheikh Béthio euh, même cabinet juge bi nga xam ne fan la leen defee instruction bi tey ñii juge un très bon juge juge Thioune ndeysaan même ba léegi daf may toog naan ay waay ndeysaan da koy ñaanal parce que même fu mu mënta nekk contexte mënu koo fekk fenn xat-xatu àdduna mënu koo fekk fenn ba mu réeree moom Cheikh Béthio ne jaamu Serigne Saliou la woon taalibe Murid Sadiq la woon. il est gardé toujours sa sérénité di kaf di rey. Ah même même si biir jafe-jafe yooyu. même ci biir jafe-jafe fu mu toog Cheikh Béthio di nga xam que ni kii c'est un homme de fois dafa gëm li mu gëm te li mu gëm dimension bi ak la tax ak lu mu ko gëmee loolu man tuuti naa lool ci mën koo lijjanti. mais man xam naa ni en tant qu'intellectuel avocat peut-être modeste intellectuel kii may jàkkaarloo jëmm ji. yaa am na derrière loo xam ne mu koy mu ngi nekk ci wetam di ko mouvoir comme on dit am na lu nekk ci ginnaaw te moom gëm na loolu la preuve bi ñu rendre verdict bi rek mu dëddu àdduna loolu tamit ñëwaat nag achevé de me convaincre que ni on était en face une personne bu am une très très grande dimension Cheikh Béthio Thioune ci mbir moomu la ñuy des ndax euh, yow ci biir euh, daanaka procédure bi yépp mm-hmm. dañ la doon dégg nga naan dossier bi en fait kenn genre kenn mënul wax lépp wala liñ ci umpale bari na wala niñ ko foogee du noonu tout le temps da nga daan wax lool ci médias yi sans entrer dans les détails peut-être du tey nga koy def mais au moins nga mun ñoo leeralal tuuti yow dossier boobu gis-gis bi nga ci amoon ak li ci nit ñi umpale woon ba tax xëy na nga doon caxee noona waaw xam nga dossier boobu nag dafa nekkoon dossier bu xaw a doy waar diisoon lool xaw diisoon lool. gisoon na lool mais lépp man moom da daan wax man da daan fa jokkoo ak man dama wax ne ma dafa ma ne lépp lu ñëw rek Moustapha da ngay lii lu war a am la Moustapha ma ne ah, lépp yàlla la. mu ne ma lépp yàlla la te man taalibi Serigne Saliou la lii nattu la bu ñëw dal ci sama kaw yéenewu ko kenn ñi ci laaxu. yéen mu leen ko woon samay bi lañu woon loolu moom daf ma ko daan faral di wax maa ngi lay xamal benn mbir li taxoon ma doon def ay intervention souvent ci presse bi jamono yu aussi ci jamono yu presse bi dafa xawoon na difficile xam nga di nga xam lenn seq ko ak kilifa doo ko mën a wax sur la place publique mais yàggoon naa artu ma ne leen nañ ci def ndànk waaw noonu sax nga ko daan waxee dossier bi nañ ci def ndànk parce que boobu moment boobu xamoon naa ni euh, mu ngi France parce que man man ak maître Ciré Clédor Ly ak Ousmane Seye mm. ñoo travaillé woon ba ñu yóbbu ko évacuation en France. difficilement lañ ko ko bañaloon. difficilement lañ ko ko bañaloon. mais finalement ñenn ñi jàppoon nañ sax feebar bi. amul lañ doon wax. alors euh, en 2013 je pense c'était en février lañ mujj am euh, loolu. ordonnance juge d'instruction cuun bi ba ñu mën ko yóbbu France d'abord sous escorte ensuite ñu dindi ko parce que moment boobu man dama doon xam état de santé biir procès bi bi mu demee ba nga xam ne dem nañ ba présenté woon ne ah dossier médical bi daf ne jabootam sama dossier médical ci loxo loxoy kenn laa koy teg mm-hmm. maître Moustapha ah Dieng nii la ñuy teg dossier médical ah sëñ Sall yo ngi may dégg sëñ Sall Gueule Tapée di xalifa mu ngi may dégg sëñ Ibrahima bokkum di jëwriñam bu ko jege mu ngi may dégg bokk naa ci ñi nga xam ne dama daan toog di dégganteek moom téléphone li mu fa nekk période du procès bi ci ñi ko gën mujj dégg ci Zahir. Mhm. man mi ci laa bokk. dafa daan am envie di ma dégg lu ñuy wax ma koy waxtaan di ko rendre compte xamoon naa état mi ñu déposé nañ ko malheureusement yow xam ngeen li ci xew. Mhm. lépp daal dañuy jàpp ne daal mbir yàlla daal moo ñëw mais nag lu yéeme la ku ku am jàng-jàng am dégg-dégg di xam que ni li xew après daanaka teguñu ci ab ay bis rendre verdict bi rek. lii am ci ëllëg sa. ci ëllëg sa 6 lii am ah man de en tout cas daf ma interpellé na ma bu baax a baax. noo ko jàngatee loolu. Euh, jàngat ne muy renvoyé lépp ci yàlla suñu borom. pour passage maa ngi remercier taxawaayu barreau du Sénégal ci procès boobu sunu bâtonnier de l'époque Mbaye Guèye batu bâtonnier bi fi nekk tey Leyti Ndiaye ñëpp a ci ñëw taxaw fexe ba ñu am ay débat judiciaire euh, serein loolu day wane aussi ne barreau du Sénégal c'est un barreau très fort alors ci biir procès bi bi mu amee. woo na njabootam mu ne leen sama dossier médical nañ ko teg ci loxo maître Moustapha moom ngeen koy jox <laughs> te ñi may dégg ñoom xam nañ li tax man maa ko jël man yóbbu ko personnellement déposer ko devant la chambre criminelle avant audience yi di commencer indi tous les éléments kóolute boobu ma am ko ci man mi nga xam ne duma dara je suis rien du tout devant quelqu'un de cette dimension wax dëgg yàlla kooku daf ma marqué dafay wane que ni li mu waxoon njabootam ni leen kii duma mës a wor moom loolu mu waxoon gëm ko moom la doon jëfe loolu mooy Cheikh Béthio la constance dans les actions de tous les jours su waxee benn ne la lii la euh, jëfe ko rek ngay gis ci moom du wor ci est pas quelqu'un buy wor doomu aadama alors bi ñu ko déposé itam moo li ci am am na ci affaire boobu yëpp bëgguma ci sori ci procès bi nangam nangam mais li ci yéeme mooy dañoo àtte tey le 6 ma génn def conférence directement foofu ci tribunal bi. ma ne leen sëriñ bi day man xam naa état de santé déposé nañ ko jugé nañ ko par contumace mais maa ngi béral Sénégal di béral askan wi ak ay taalibeem que ne sëriñ bi tey kenn gënu ko a bëgg a teew fekke mbir yi demee. dafa bëggoon ñëw moom. bëggoon naa ñëw. il voulait être là wér-gi-yaramam moo ko ko mayutan parce que li xewoon foofu yëpp ak njabootam la da ko daan wax. Mm-hmm. man yàgg naa dem mu may yónni may dem ay procès yoo xam avant Médinatoul Salam yi di am. Mm-hmm. yoo xam ne ay xew-xew doon na am ci biir kuréel yi daal ak ñii nga xam ne tey dañoo fan mu ne ma demal tribunalu Thiès wala demal tribunalu Dakaaru soo fa demee na nga ne bàyyi naa lépp mu sedd contre ñi nga xam ñoo gën nga xam ne dafa yàgg cultiver loolu. moom dama doon wax ci dernier mooyam yi ma wax je pense que déglu naa ko quelque quelque heures wu quelque jour avant muy li yàlla def li gën mu may fàttali moom su sañoon day ñëw teew ndax lii ci ak njabootam la dal. quand de l'ai dit malheureusement on nous a mais en ce qui a été ay a man li ma ci jàngat te waxuma ci procès bi nag damay wax ci li nga xam ne mooy. mbir mi yëpp mbir yëpp ñu àtte ko le 6 tegal ko tuuma yu bari itam ñu àtte ko ñu xëy suba sëñ bi làqu ci Zaïre loolu mbir la bu may yéeme yéeme. dafa xaw a doon loo xam ne même Sénégal yi mel na ni yéem na leen. waaw parce que man xamoon naa ni lii moom mooy étam xamoon naa tamit dimension bi nga xam ne spirituel lu Serigne Béthio ak pastéefam ak foi bi mu am en tant que musulman en tant que taalibi murit en tant que ndëkk kenn koo xam ne cofeelam ci Serigne Saliou foo ko natt rek weesu na ko bi ñu àttee. avant ñuy àtte sax parce que def nañ délibéré lañ ko defoon. saa yu ma woowee téléphone waxtaan ak man lépp daf koy remercié ci yàlla ak sëriñ Saliou bi nga xam ne moom la yaakaar wax na ma ko du benn du ñaar ba bi ñuy àtte mbir mi non c'était quelqu'un de de spécial sëriñ Cheikh Béthio man samay samay peut que ni may waxee ni kenn mën na ko dégg yaakaar non non c'est pas du fanatisme dama équilibré. man sama côté ñaari côté boo ko jàppee duma ma mën lu dul équilibré man suma papa. jaasam bi nga xam ne moom la ko Serigne Babacar si def mu ngi ci sama bureau sama papa mu xàddam la woon Serigne Habib sama maam Seydi Hadji Malick moo ko yebaloon mu ñëw Thiaroye sur pour initier lébowu Thiaroye sur ci tarixa Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane sama papa nekk fa imam ginnaaw bi fa ma papaam nekkee imaam ba tey jàkk jaa ngi fi jàkka ji sama papa nekkoon imaam tey juge Ndadi Diop bi nekk tribunal de grande instance su Dakar moom tey moo fay imaam nga xam ne li may xam naa ko bu baax dama féete ci côté Tivaouane amit jër ci côté Touba donc lu may wax dama koy wax avec équilibre. je le dis sans passion inutile mais dama ko wax ci li nga xam ne moom laa jàpp ne moom mooy li ma gëm te li ma gis j'ai vu ci Cheikh Béthio nit koo xam ne dem na ba laaxu ci Zaïre mais message yi mu bàyyi suñ ci sénégalais amee njàngat bu rafet am ci njàngat bi ci war mën na indi njariñ ci askan wi comme ban message ban message nga gën a jàpp ne askan wi war nañ ci bàyyi xel bu Cheikh Béthio. d'abord ñu jiital ci moom li nga xam ni moom la jëlee woon ci Serigne Saliou muy maanaam jàmm ji ñitu jàmm la woon ku bëggoon jàmm la woon. bëggoon na jataay boo nekk rek lépp lépp lépp di jàmm mais itam nit ku nangu woon na liggéeyal woon ñax. nit ku bëggoon a liggéey la daan fonk koo xam ne dafay fekk ci liggéey ngay liggéey da koy da koy gëm da koy bëgg. Cheikh Béthio bàyyi na def na lu nekk rayante na boo xoolee tey ay njabootam ñoom ñépp da leen woon ci culture travail ñuy ñaq di jariñu benn nit ku tabe la woon Cheikh Béthio jël am tey ñu jox ko cent millions mu jël cent millions yi séddale ko léegi cent millions yi toog yore juróomi dërëm du dara ci moom. wax nga ko sànq ay junni junni doomu aadama jox na leen ay kër ñu dëkk fa tey ak seen njaboot Cheikh Béthio Médina Testament bi bi mu ko lotisee lépp daf ko jox ay taalibe ak ñi ko soxla foofu du woon nitu àdduna nitu liggéeykat la woon ku bëggoon jàmm la ku tabe woon la ku nangu woon a sonn ci soxla doomu aadama mu ngi noonu Cheikh Béthio ku mu gis nga am problème Cheikh Béthio dootul ànd ak sagoom tant que deful lu mus kent laay kattam ba dimbali doomu aadama boobu c'était quelqu'un boo xam ne daawul gis ci dimension di leneen lu dul euh, jaamu yàlla ñëpp la bëggoon amul xàjjeeg seen du sax ci tarixa du sax ci gëm-gëmu religion ñëpp la jël rek daf leen bet c'était quelqu'un boo xam ne entre nous wax ci moom euh, dafa xaw a jafe dinañ am dimension wu que ni dañuy def ay redite walla dara mais Cheikh Béthio Thioune moo demee woon noonu te je parle sous le contrôle de maître Ousmane Seye nga xam ne moom xaritam la woon moo ko gën a contempler ko sama doyen la Cheikh Ousmane Seye nekkoon na ci ay sirecle doon ñu woon ci dossier bi am na ñoo xam ne ils l'ont découvert à travers le procès mais man mi nga xam ne bi ma nekkee élève daanaka laay dem di jaxasoo ak Cheikh Béthio ndax kóllëre bi doxoon sama diggante bi doxoon digganteem ak sama wayjur bu jigéen xam naa ne woon que ni le Sénégal a perdu un grand homme. Euh, yow est-ce que bi ñu joxee verdict bi amoon nga ay craint par rapport ak réaction taalibe yi ak yooyu. non amoon crainte non parce que man sama wàllu bopp avant sax verdict yi moom dafa ma doon woo téléphone depuis la France daanaka du ma toog bis te woowu ma. bokk naa ci ñi mujj déggante ak Cheikh Béthio ci Zaire ci kaw suuf man ak sëñ Ibrahima bokkum boobu xam na li may wax lu leer laa lay wax dama doon déggante moom constamment jusqu'à bi mu demee ba ci cëppaandaw bi sax dama daan ak moom moom man dafa ma apaisé ne ma lu ñëw rek yàlla dama bëgg ñëpp ànd ak dal te lii moo doon wax nii loolu la ko doon waxee taal yi day sax leen éduqué ñoom nag waa kër waa kër Cheikh Béthio yi wax dëgg yàlla soo xoolee lu coow li di bëree bëree bëree bëri bëri yooyu yëpp foo leen xoolee xam ne ñoom ñëpp ñu ngi tendre vers lu am rek ñu indi mbégte ci askan wi moom noonu la leen yare est xam nga benn affaire taalibewu Cheikh Béthio yi doo ci gis kenn koo xam ne nañ ko dugal ci yenn yi la plupart boo nekkee taalibe doo jëfandikoo sinébar doo tuxu doo naan yooyu bokkul ci taalibewu Cheikh Béthio te mën nga dem Medina Salaam wala nga dem Janatu Mahwa li ma la wax nii di nga ko xam te na ko seetlu ci ay njabootam na nga seetlu tamit ci ay njabootam ni doo leen fekk jamais ñuy tongoo xamuñu ko sax fu coow amee sax gars yi di wax nii wala nangam nangam danañ dañuy commencé jaaxle parce que da leen yar ci ak dal da leen yar ci ak ngëm da leen a yar ci ak taalibe moo tax procès bi avant ñuy rendre verdict bi j'étais bi ñu rendre bi j'étais pas inquiet parce que toog na yàgg naa toog wax ak taalibeem ci ay cant. Mm-hmm. ba ñëpp xam ne nitu jàmm la nit de la te waxoon na leen ne leen rek lu ñëw rek nañu xam ne moom sëñ Cheikh Béthio bu sëñ Saliou li muy recommandé mooy na ñëpp ànd ak dal parce que dafa bëgg ci Sénégal fitna bañ fee jóg ñu tàppee xol yi comme ni ko Seydi ma ma daan waxee ñëpp nekk benn. daan wax nañu def tout pour que Sénégal bañ a tàkk pour que ñu nekk benn donc lii li am nii ba mu ko commencé wax mooy bi ñu defee première fois arrestation ba defere ko à au parquet de Thiès yóbbu ko à la maison d'arrêt de Thiès ba taalibi di ñëw la doon tom leen wax ne leen lu ñëw na xam ne lii lu waroon am la bu kenn yee fitna ci réew loolu mooy Cheikh Béthio Thioune. te loolu réussir na ko même si wax na ak ñoom probablement am na ñu mënoon wone frustration wala seen naqar waaye génn àddunaam juste au lendemain du verdict dafa fay lépp yaram yépp la rey yow est-ce que gis-gis boobu nga ci am que ni vraiment euh, yéeneem daal moo dox foofu fay na lépp jeex na kenn dootu ci wax ndax taloon nañ yeneen ba ñu xëyee. da ko sax waxoon nag far. ah oui. sax waxoon nag far cest à xaw ma soxna si ndax yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax. loolu yi am nii. Hmm. da ko sax waxoon nag far te daf ko dundoon ak ay jegeñaaleem sëriñ bi départam ci Zaïre dafa pour man dafa wanewaat encore dimension bi mu amoon lim daan enseigné di ko bëgg yépp ci jàmm ak salaam ak fitna bañ a yeewu ci réew mi maanaam deminam bi ci Zaïre da ko wane c'était sa volonté qui te yàlla sunu boroom dimbali ko ci génn na àdduna te ñëpp xam nañ ne ne Cheikh Béthio am na mbooloo. Mm-hmm. am na ay doomu aadama yoo xam ne lii ànd nañoo moom te Cheikh Béthio ñuy ànd ak moom ba tey ñuy ànd ak Cheikh Béthio jamono mën naa dox ñuy dégg ay nangam ak nangam yooyu ay détails la. Mm-hmm. mais man la ma gëm man ma xam ko te nag ma koy wax en tant que ku am cofeel ci njabootu Cheikh beeju yépp mm-hmm. allah kulli aal. te dinga ne waxoon naa la ko man mii ñoom ñëpp dinañu retrouver waat nekkaat benn parce que mosuñoo sax ñàkk bañ a nekk benn waaye ku ci dugg fa sañ see dugg pour indi loo xam ne day xaajale jabootu Cheikh Béthio yaakaar naa ne di am problème te ku ci dugg bëgg a def loolu damay ñaan nga retiré wu ci ndànk parce lii Cheikh Béthio sëñ Saliou da koo da koo tabax def ci moom ay une dimension spirituelle bu doy waar mu def ko ci njabootam képp ku ñëw rek na nga ànd ci li nga xam ne moom moo war a nekk mooy fexe ba mission boobu njabootam gi réunis ensemble sama am benn xaajaloo ñu ànd ko ne di ko jëfe loolu moom mooy seen volonté ñoom yi ñoom ñëpp a baax Cheikh Béthio njabootam amul kenn koo xam ne war nañoo mën a ñëw taxaw wax ci moom lii man dama leen a xam moo tax des fois duma leen bëgg a jege noonu trop <laughs> dama leen a xam bu baax a baax ñu baax lañu wax loolu boo ko waxee mun nañu ko gëm ndax jaxasoo woon nga ak ak Cheikh Béthio ñaari facettes yooyu moo waral ñu dalal la ci démb ak tey ndax avocat nga woon waaye itam doom nga woon ci moom mm-hmm. mu gën koo firndeel nag bi mu nekkee ci jafe-jafe yooyu muy mbiru Medinatul Salaam maître Moustapha Dieng euh, procès bi yan moment ñoo la si gën a marqué Euh, man tey bu ma la doon wax exemple euh, bokk na ci image yi ma retenir ndax couvrir naa mbir moomu euh, bi taalibe yi toogee buntu rëbës mhm. daanaka foo gëstu ay nit ngay gis ak ni rëbës toll ñu daanaka encercler prison bi toog mhm. ñëpp ñëpp nekk ci suuf ànd ak dal c'est des images des moments forts yow en tant qu'avocat dund procès bi du début à la fin yenn moment ñoo la si gën a marqué bon moment yi ma ci gën a marqué man mooy ci bis ba vingt journée wu vingt deux journée wu vingt trois avril deux mille douze. bi yëf yi amee. bi yëf yi sëriñ bi woom wax naa la suba teel dama loo jàppoon bàyyi ko na nga ñëw fekk si ma fii ndax kat mbir am na man sax xaw ma di xew bis boobu daanaka ñun ñoo accompagner cheikh bi ba gendarmerie wu Thiès. ah boobu yéeme na lool ay junniy taalibe Cees mel noo xam ne kenn xamul taalibe ne duñ ko dégg foo sànni mbàtt mu tag tension bu doy waar am ci dëkk bi affrontement nangam nangam cheikh bi ne man damaa bëgg gis samay avocat ne woolu ma ne man na Moustapha ñëw joxe listam jour ba may dem defe naa ne maître Ibrahima Mbengue ci la bokk maak Ousmane Sey am na ñeneen ñu ci nekkoon ba ñu demee daf maa woo ci bi ñu nekkee foofu commandant bi capitaine bu gendarmerie bi nekk ku baax tamit wax dëgg yàlla capitaine Diouf su je crois chef bi ne ko dafa bëgg a wax ak man man ma met amul problème wax nañu sax ne yow ni ngeen demee ma ñëw mun ne ma dama bëgg nga génneel ma message boo demee nga waxal ma Thiès yëngu-yëngu yi fi am ne lépp arrêté. na lépp sedd te xam naa ne boo demee boo leen ko waxee dinañ xam ne maa ko wax. ah ma génn dem gis sëriñ Saliou ak ñeneen ci njabootu Cheikh Béthio ba ma leen ko waxee mbir yëpp fay lépp a arrêté may loolu moom lay wanaat encore une fois que fi jàmm la woon. mu ne ma bëgguma kenn yàqal fi alalu kenn. ndax mbooloo mi li muy rëy rëy tamit maîtriser na ko mbooloo yëpp maîtriser na ko. dafa amoon maîtrise ci mbooloom. yaa ngi wax rëbës mais Thiès maison d'arrêt wu Thiès bu Cheikh Béthio li mu fay nekk gi mois d'avril ba mois de presque euh, def na fa ay weer avant ñu koy indi fii pour raison médical pour yóbbu ko interne ko pavillon spécial saa yoo xëyee ay junni junni junniy taalibe ñu ngi foofu toog. ñooy def togg yi ñooy dalal gan yi ñoo yóbbu añ yi ñooy raxas bool yi te li ma ci gën a yéem mooy du sax taalib yi kese mais njabootam ay soxnaam yi tey ñi xam ne ñoom ñépp samay kilifa lañ wax dëgg yàlla sama yaay lañ ñoom ñoo ci doon jiitu ci liggéey boobu di dalal xel yi di liggéey di jàppale ñu nekk ci prison yi Thiès la tàmbalee. loolu lu ma yéem la mais itam yaa ngi may wax ma indi ay souvenir ci biir procès bi su ma dellusee par exemple ci procès wu sëriñ bi am na ay ay ay ay yu ma ci marqué parce que loolu bu lay marqué xanaa après li xew lay doon li ma marqué mooy unité bi nga xam ne moom la waa kër Cheikh Béthio yépp jiital ci nekk Serigne Saliou Thioune ci taxawaay ànd ci ak dal bu mat sëkk tribunal bi bu ñu ñëwee kenn du leen fa jiitu convocation yi ñu jox amul benn yoon boo xam ne ñi doon àtte wax nañ leen ne reproché nañ ne famille Cheikh Béthio muy soxna Aïda Diallo muy ñeneen ñi nga xam ne ñoo fa new ñu woo leen kenn du leen fa jiitu mais ñoom ñëpp bu ñëwee ak ñoom sëñ Saliou ma taxaw jàkkaarloog ñoom rek man sama force daaw ma ko puiser ci élément wu dossier yi mais ci ñoom su jàkkaalook ñoom gis rek ni ñu àndee ak taxawaay bi ak pas-pasu ak ngëm-ngëm bi ñu gëm sëriñ bi xam que ni kii kat jaamu sëriñ Saalu bii li ñu koy tuumal mënu koo nekk ñu gëm loolu dama koo yëg loolu affaire bu ma marqué la. ci daan kon. daf ma daan motiver daf ma doon wan que ni lii may taxaw di ko taxaw sama xarit ba sama papa ja dëgg sama way jur wa li may ñëw di ko taxaw du neen c'était des gens de conviction et maa ngi fàttaliku tamit loolu aussi lu may rafet la ndeysaan ci biir procès bi comme ni mu ko doon defee sax bi ñu nekkee Thiès parce que man daf ma logé woon foofu moom far ma féetewu nag ma ne man bàyyi naa liggéey avocat bi damay dem ma défendre sëriñ bi mais ci biir procès bi ndeysaan pour vous dire que ñoom dañoo am seen famille yi dañoo am colère ma tàmbalee ko sëriñ Saliou su ma nekkee Thiès Mbour bay waaj a ñibbi ay jëwliñam dañ daan yëkkati ay teraanga ne ma boo demee nga joxal ñu ko meer xel ko parce que mag la mënut a déplacé wu. loolu lu ma lu ma yéem la dem na itam benn jour bi ñu demee ba jeexal procès bi ndeysaan bi ñu ko mettre en délibéré soxna Aïda Diallo bii tey di sama kilifa. woo ma téléphone ne ma mère ça fait une semaine yaa ngi fii noo te il nga ñëw kër ga bala ngaa dem mhm. ñu tàggatoo alors ma dem kër ga bi may dem maa ngi ànd ak El Mamadou Ndiaye sama benn associé la sax léegi ci man ak maître Ibrahima Mbengue ma leen kaay leen mu nga damay dem seeti Soxna Aida ba ma demee këram dafa ubbil ay buntam berndeel ma wax fa wax yu yéeme. ne ma ñun dey famille bi gis nañ ne day dëgg-dëgg kóllëre bi nga doxoon ak sëñ bi loxoon sa diggante ak sëñ Béthio matal nga ko sëkk ma ne leen des na la ci des moom mooy dama bëgg sëriñ bi yàlla may ko mu dellu ci sagoom am wér ak wérle ba dellu ci njabootam mu jékkati ndeysaan ay ay teraange mooy itam ne damaa bëgg nga jëm tegal ma ko ci loxo meer xel ko parce que moom sunu wéyjur la sunu kilifa la. kon daal cantaakun daal mooy kóllëre fidélité. kóllëre fidélité yaru ak tabe. sa wéyjur nu mu dundee loola. très difficilement très difficilement ndaxte léegi moom presque la quatre vingt cinq ans mag la. am na yu bëri yoo xam ne sax dama ko doon ndeysaan dama ko doon xaw a nëbb nëbb parce que jot ci information bi jot ci information dama ko doon gérer gérer ak sama mag xalifa Babacar ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana ga di ko dëfal léegi sax ñu jox ko ay des informations ay fausses pistes <laughs> ndaxte dafa jaxasoo woon ak moom lool te lool yi may wax ni ndeysaan waa kër Sëñ Béthio yëpp xam nañ ko hmm. waaw maa ngi leen di sant ñoom maa ngi leen di sant di leen ñaanal waa kër Sëñ Béthio njabootam gépp nag laa wax nit ñu baax lañu mais am nañu woon benn kilifa du dimension exceptionnelle koo xam ne boo jàngee tubaab boo ñëwee ci moom mu yéem la boo jàngee itam diine wàllu àdduna wàllu diine boo ñëwee tamit dina la yéem Cheikh Béthio c'est quelqu'un qui aimait vraiment discuter di sàkku xam-xam lu mu xamul du am na modestie wu réyul woon soo ñëwee nga wax ko leen loo xam ne xamu ko danaa ne déet di xaw ma ko nii nangam ak i nangam ak i nangam lii nan la tëddee muy ci wàllu woo mën a jël nag côté diine côté astronomie côté science côté technique côté droit côté science humaine foo ko wër rek da nga gis ne c'était quelqu'un qui aimait qui avait cette dimension là dimension boobu nag daf ko wasaare ci njabootam wasaare ko tamit ci ay taalibeem lu jamono di dox dox. lu problème di am dam doo dégg taalibi Cheikh Béthio ci yenn yi loolu man maa la ko mën a seereel te dama koy gisal sama bopp te dama koy dund ak ñoom njabootu bu baax a ngoogu ay taalibe yu am pëstee fa ngoogu te ñu xam bu baax a baax diggante sëriñ Béthio ak sëriñ Saliou que ni la ca nekk yéem na loo doomu aadama xam lépp ñoom dañoo xam loolu cette modestie là moom moo tax wax dëgg yàlla ngay coowetee moom di jëflantee moom chaque jour day nekk loo xam ne mbégte la ci man maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu ànd yàgg fi lool te ànd ak wér loolu moom maa ngi leen koy ñaanal. un dernier message ci taalibe yi euh, ñu jeexalee loolu taalibe Cheikh Béthio yi nekkatu fi euh, mais tey. Euh, loo leen di sànni comme message en tant que ku waaye cheikh bi ko yàgg waxtaan ak moom ci yu bare bari ak xëy na mbébét bi mu amoon ci taalibe ah xanaa ne man nag day nag xam nga man dama di dama di koo xam ne nag peut-être euh, foofu moom day diis parce que Cheikh Béthio dafay bàyyi njabootam te ci ci ci am dégg-dégg xam ne que ni kat xalifaam bii fi toog muy sëñ Saliou wax dëgg yàlla foo ko fekk mu ngi lancé ay message de paix. fees na place am de fees na place te sama xarit la te moom mii sama kóllëre rek moom du tey boobu temps ay ndaw lañu liggéeykat la naa moo ne Sëñ Saliou Gueule Tapée c'est un cadre liggéey na fii CDE ah, ah oui non non non il ne Sëñ Saliou a toujours travaillé dans sa sëñ beccu ñoom ñëpp a yàgg liggéey dañuy daan seen doole de te ci ñoom Fatim yi mu ngi may dégg ñoom ñëpp ay ay ay reyantekat lañu ku ci nekk da laa fàggul ne la nag nga dem rayante taxaw parce que loolu moom mooy ensegnement wu Serigne Touba le mouridisme c'est le travail Serigne Saliou ku ne Serigne Saliou ne xel koom ku ne xel Xelkom mënoo ci génne sim beeju ci njàmbaar ga mënoo ci génne sama yaay bi ñu tuddee meer Xelkom lu leer laa la wax nii donc message bi Serigne Saliou lancé na ko na ñëpp déggu message am. message bi njabootam gi yépp nag soxna yeeg doom yeeg kulim jum ñoom ñëpp ñu ngi ci képp ku ñëw nag bëgg a wéy sa couleur bi nga xam ne sixoon ko ak sëriñ Béthio message de paix yooyu message yu fonkante ak bëggante message yu taalibe yooyu di sax ci ndigal ci nga war a tënku te yaakaar naa ñu ngi ciy tënku nag wax dëgg yàlla c'est des gens pacifique c'est des gens travailleurs amuñu problème ak benn doomu aadama wax dëgg yàlla maa ngi leen di ñaanal daal franchement di leen ñaanal ñoom ñépp kenn ku ci nekk daal si yéene bi nga amoon ba nekk cantaakoon ànd ak Cheikh Béthio yàlla vraiment mottali lépp incha allah jërëjëf maître Moustapha Dieng amoon nañu mbégte lool dalal la ci émission Demb ak Tay doon waxtaanee Serigne Cheikh Béthio waxtaanee itam li ci xew yépp ci dundam gi macha allah du lépp sax waaye li ñu ci gënoon tey yëkkati en tant que avocat bi nga nekkoon ci moom nekkoon itam doom mooy procès bi ak euh, mbir mi nga xam ne moo ci toftalu muy génn ak àddunaam ak yi dox seen diggante yéen ñaar particulièrement ñu ngi lay gërëm en tout cas di la sant ci li nga ñu jot a xamal ci Cheikh bi xëy na am na yeneen yu bari yoo xam ni warees na ko cee mën a xam waaye xëy na àdduna dina dox ba ñu am keneen itam ku ñu ci wax leneen ndax ni nga ko waxee rek Cheikh Béthio c'était une autre dimension te xam naa ne tey moom ñu bëri euh, bi mu fi jógee euh, jàngat bi ñu def ci dundam mooy nit la woon ko spécial yàlla na yàlla dolli wàccee yërmande ci moom ak xéewal fayal ñu sunu mag ñu baax ñépp euh, ñu ngi lay gërëm merci Dieng jërëjëf. C'est moi qui vous remercie jërëjëf.